c'est-à-dire que pour man waxtaan daal war na am il faut que ñu toog échanger euh, bu ñu demee ba jàpp ne quarante huit mille c'est vrai que benn jamono mënoon nañ ko nangu tey war nañu yokk yokk bi il faut que les choses s'expliquent dalal nañ fi ñi nga xamante ni mooy association xaw wàllu industriel ñoom aussi dañu xëyoon rek waaw benn note de service des douanes daal ne leen foog ñu yokk taxes yi c'était inexpliqué donc je pense que ne y a un a une rupture de communication boo xamante ni saa bu amee rek mën na déboucher sur tension parce que de quarante huit mille à quatre millions mais jàmbar foog nga expliquer ko. lool ah oui loolu nga expliquer ko. et je pense que aussi c'est les autorités du port aussi loolu la ñuy xaar ci ñoom ñu joxe ay explications par rapport à ça mais li gën a métti dans cette affaire c'est encore le consommateur parce que répercussion yëpp ci moom lay dal. oui. le producteur le consommateur finalement le contribuable sénégalais moom mooy subir de plein fouet li nga xamante ni moom mooy décision yoo xam ne jël nañ ko à un autre niveau et je pense que ne dafay dellu ci li ñu doon wax léegi ci enseignants yi la tension financière bi am fu ñu mën a tappe dinañ fa tappe aujourd'hui pour wut fa xaalis et man yàlla xam na ne damay ñeewante ñu yor Sénégal actuellement parce que c'est comme si ils étaient obligés l'ajustement structurel bi ñuy bañ a tudd comme bi ko Abdou Diouf tuddee jurul woon jàmm ñu ne nañ ko wutal beneen tur mais ce sera difficile ñu gëm ne nekkuñu ci ajustement parce que tey jii luy social kenn dootu ko tudd euh, ci ñi nga xamante ni aussi dañ leen doon euh, taxé ñu yokk taxe yi je pense que ni ci lool maintenant il faut que ñu xool aussi lan la bëgg parce que l' activité économique forcément day nekk au ralenti te yaa ngi aspirer à l' yaa ngi aspirer ci benn taux de croissance boo xamante ni bu am solo lay nekk et la compétition elle n'attend pas tey jii bu nu Nouakchott di am benn taxawaay tey euh, Abidjan di am benn taxawaay alors bëggoon bu bu day tolloo dayoo ak ambition yi nga xamante ni am nañ ko mais je vous assure encore une fois euh, comme on est candidat comme je l'ai dit tout candidature bi tamit day nekk day gën a day gën a jafe day gën a jafe mais der waxtaan bi foog maam il faut que gars yi expliquer mesures yi ñuy def nii. waaye de 48 000 à 4 millions expliquer ko ñi c'est possible xam nga nag nit ñi mënoo leen njatt ne leen. mais ñoo toog ñoo toog par force wax. <laughs> mais man man man je pense que des fois des fois dafay am ay ay thèmes yoo xam ne su nit yi ñëw di wax de tu es sénégalais. tu as envie que état bi déglu leen. Mhm. et respecte leen. Euh, aussi il faut que ñu évoquer euh, implication wu DP World ci biir port bi monopole xam nga tamit doy na waar daal. doy na waar parce que seen loxo génnul si si tolof tolof yi ñii di am yan investissement la ñu def ci port bi fan la ñu jëlee fu ñu yóbbu port bi parce que même nit bi nga xam ne xam nga dañu nekk si dëkk yoo xam ne am na yenn liggéey yoo xam ne man dama naan dama heureusement que defuma ko parce que aussi nit yu bëri respecté wuñ leen par rapport ak métier bi ñuy def. ci nga waa ji dawal camion bi. vraiment il xam nga xam nga. je les accidents voilà. maintenant et du loolu sax du loolu dafa am dafa am. comprends dafa moo tax di nga gis di nga romb sa oto seen benn nit buy liggéey nga nga nga ñeemantal koo xaa ne ne vraiment kii jàmbaar la parce que en réalité. nit avant ñuy convoqué sax taxi yeeg yooyu yëpp nit bi nga xam ne dafa ñëw ci di liggéey ki da ko war a respecté. respect bi moom mooy que mënuloo téye benn nit ci benn camion on ne le pas de mbirum polition ñooñu boo leen demoon yóbbu leen ñu defal leen bi ay diagnostic nga xool examen nga ubbi seen dënn yeeg seen kii da ngay cest que il faut déjà ñu nettoyer suñu environnement bi ñuy liggéey. <laughs> donc booba yaa ngi sori. non non mais il a non il a parfaitement. nga xam que buuba dafa mel ni tey. dafa image xam nga buuba lan moo wër. non on est même euh, yi. souffre donc souffre bi waa ICS. c'est quoi espérance de vie ces gens-là. mais Bouba donc. Euh, non pour tabax mais moom naa leen parce que parce que parce que pour man pour man bu bu bu bu bu borom doole multinational yooyu jógee extérieur ñëw. quoi ça li ñu war a njëkk andi si suñu réew yi mooy ñoom li ñuy liggéey ci réew ya ñu nekk. implanté wu fa. yan condition de travail la ñuy créer pour déjà respecter. wél gu yaram ak nit yi parce que man li ma jàngat ci wax coow li yëpp mooy manque de wormaal doomu aadama surtout surtout un sénégalais bu nekk ci biir dëkkal di liggéey dafa am loo xam ne warul mën a ne mënuloo jóge ci 48000 par exemple dem si 4 millions 500 quelle que soit la raison. te on te tire pas les pompes kenn mënu ko expliquer. tu <laughs> me ah mais pour man le problème de de de di xew ci port bi. c'est d'abord un problème de respect. il faut que ñu respecter aussi sénégalais yi nga xam ne ñu ngi liggéey. waaw bu ñu leen waree yokk ñu yokk leen oui. Mhm. mais nañ leen respecter avant. wax ak ñoom tey ji nii li mu expliquer nii. mënuloo yor camion toog fenn pendant vingt quatre heures c'est pas normal. c'est pas possible. c'est pas possible. loolu nga war a njëkk a avant ngay jéem a encaisser gars yi xaalis. loolu mooy priorité la compétitivité. voilà et le ce pas euh, possible. donc loolu pour man il faut que ñu ñu régler ko avant ñuy wax waxi xaalis. waxi xaalis surtout. ñi nga xam ne jox nañ leen port bi jox leen ko ñu koy ñu koy ñu koy dawal ah parce que fii dañu bëgg ne le DG il vient. pour man il faut ñu arrêter di personnaliser. ay parce que yow yaay directeur port wala service problème bi du noonu normalement ah, loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk. personnaliser affaire nit DG bi c'est pas important xam na moo am importance vision bi. ak service bi ak service donc nit ñi nga xam ne vraiment dañuy liggéey foofu problème bi moom gars yi dañ ci war a taxaw. convoquer déjà loolu. mais ok nan la ñu mën a def ba nga xam ba pare camion du oto bu ndaw man. du ndaw de. camion dafa métti loolu yëpp imaginer gars yi physiquement li ñuy daj ñii bu ñu eggee seen kër yi mais du ñu mën dara léegi accident yi on comprend xam nga boo mënoo nekk benn 48 heures si benn port di xaar benn conteneur bu yëg pour yëgati ko c'est pas possible c'est n'importe quoi donc je pense que il faut ñu convoquer loolu quoi le problème la normalement autorités yi hmm. war ñu xam sensibilité problème bi pour essayer de le régler nu mu gën a gaawee le poumon de l'économie allez ma la baax hmm. ba pare mais je pense que cette inquiétude boobu noonu cette mhm. préoccupation boobu noonu ça s'adresse à lui parce que mhm. c'est un transporteur mhm. et il paye un chauffeur et il accepte de laisser son chauffeur dans ces conditions-là c'est-à-dire lan mooy les conditions dans lesquelles il choisit un chauffeur est-ce que respecte na les critères te à côté de chauffeur xam nga ñii c'est un peu des privilégiés il y a aussi les dockerman yenukat yi c'est généralement parce que yenukat yi également bu ñu defee nii yenootuñu boo leen fa nekkee dara du sotti aujourd'hui on parle de transporteurs parce que xëy na am nañu importance ci dispositif bi mais yenukat yi bu ñu grévé port bi même. mais on parle des conteneurs non non mais attention Malal non Malal on parle ah, de de mille con. trois cent de conteneurs Malal. oui mais on mais on décharge en tout cas. non mais mais conteneur bi nit moo koy décharger aujourd'hui. c'est-à-dire bu dee conteneur. oui machine la koy machine qui descendent on a perdu d'ailleurs euh, notre imprimerie. on a souffert ah on a perdu un conteneur comme ça. effectivement mais question malal c'est par rapport toujours aux ressources humaines. votre responsabilité voilà. oui mais attends parce que cascade là na dëgg mais malal boo dégloo. boo dégloo wax naa la ne la mm. man personnellement. j'utilise deux chauffeurs pour benn conteneur ñu génne ko pour c'est pas normal. il est obligé de xam nga bul fàtte aussi ne dafa am coût bu mu lay dikk. oui mais dama ne mais dama ne cette question la waaw la posez pas sur la table comme aujourd'hui ni ngeen génne teg cette revendication là. c'est la unième fois. oui non xam nga mais cette, cette question liée. Mhm. à ces chauffeurs qui restent cloués au camion. du ñu mën a subvenir à leur besoins. parce que tout simplement loolu moom mooy les critères qui sont devenus euh, qui sont qui, euh, critères yi ñu teg vous n'êtes jamais sorti vous plaindre par rapport à ça mmh. musu leen génn ñaxtu loolu waaw mais mais mais mais malal. malal non parce que man man man man li ma ko interpellé woon. parce que je pense que waxuñu la même chose dama ne. aujourd'hui condition yooyu. moo ñoom moo tax ñu taxaw. ils sont obligés. voilà moom laay wax c'est-à-dire la bëgg a wax xam nga yow boo jotee ci information. c'est mën naa ñëw toog jox la information bi. su ma méttiwul woon naqari ma ci samay chauffeur du ma ñëw toog fi di ko wax. c'est parce que fu ma toog dama ko fa jooy moom muy directeur du muy ministre bi fu ci nekk dañoo toog parce que liggéey bi ci nekk rek dafa am conséquence bu muy subir ci keneen. Mm. xam nga dama lay may benn affaire dama lay may benn a grave. Mm-hmm. boo jëlee un conteneur i cube xam nga conteneur yi dafa am différents types de conteneurs. xëy na personne lambda bi moom li mu xam mooy un conteneur 20 pieds un conteneur 40 pieds. Mhm. am conteneur frigorifique am conteneur flat right open top et cetera dafa am boo xam ne moo gën a gudd ci conteneur yi. Mhm. nga jël conteneur bi génn war ko yóbbu Saint-Louis wala fu mu mën di doon nga egg jam ñaajo laser bi taf ñu ne non hauteur bi dafa gudd tu paye 100 000 francs est-ce que man conteneur bi mën naa ko dagg parce que. <laughs> Mhm. Mm. dafa am ay normes internationaux yoo xam ne ñoom ñoo régir mm. réglementation conteneur mm. nga ñëw ñu bëgg la indil beneen réglementation boo xam ne ça n'a rien à bu dee da ngay yàq ñu xalaat ne point yi ngay yàq xanaa mënul rom point ba egg jam ñaajo on te bloque beneen affaire bi nga xam ne règlement 14 dañ ko indi te dugguñ ci mm-hmm. dañu dem jam ñaajo tu sais que hydrocarbure lépp ci bokk luy def poids ñu ñëw ils ont retenu une vingtaine de camions citernes quarante mille litres mm-hmm. ils ont retenu des camion plateau yu teg ay vrac de camions yu teg ay conteneurs. Mhm. facturé c'est tellement cher parce que li graaw mooy dañ naan da nga koy délesté délesté mooy conteneur bi douane da ngay def demande. Mhm. patiente ba muy autorisé nga delloo si conteneur bi sur Dakar. Mhm. soit ñu changé oto bi wala ñu ubbi conteneur bi wàññi bagage yi pour nga delloo ko. bu dee carburant on calcule la distance entre fi nga chargé woon ak fi nga kii fi nga war a jëm bu ci gën a jege. nga yóbbu foofu ñu délesté nga fay comme nag ñoom préparé wu woon yooyu yëpp. Mhm. ñu regroupé ñëpp ñu taxaw. chauffeur fu mu nekk bëgg a def dara mu daal di ñëw boyal seen fourneau toog di attaaya yaa quelqu'un boo xam ne xelam dafa naaj ñëw romb gis fourneau bii boy. mu ne mais yéen. ci hydrocarbure. waaw essence ngeen di. inflammable xam nga xam nga quand tu fais transport oto bi da nga ko war a baliser. absolument. Mhm. pour montrer aux gens lii dafa. dangereux bu kenn danger waaw. Mhm, mhm, nga dem pont bascule Diamniadio vingt camions gaaree taxaw ku ci ne quarante mille litres. de carburant yi gaz wala essence. chauffeur yeneen yi ay plateau ñii yor ay conteneurs. sonn nañ toog di def seen appareil booyal léegi su tàkkoon fan lañ leen di jëm. non ñu indi frigo conteneur frigo mu yàpp ay jën. Hmm. ñu peser ni ko ëpp nga dañ koy délester. amuñu prise pour brancher pour que chaîne de froid bi continuer <laughs> amuñu fu ñu yàq jën yi ki waat ko parce que dafa oh. yàqu. ñu ne camion bi da ngay noonu parce que amuñu solution parce que c'est pas prévu ci ci ci règlement. su fekkee ne prévoir ko ci règlement bi doo bàyyi oto mu dem. Hmm. c' est ça le règlement 14. 2005 ba léegi ñu ngi traîner ak moom di traîner ak moom di traîner. mais quand mais par exemple conteneur bi pourquoi mu moom lay wax ne la li ma lay wax buuba hmm. bu ñëwee dafa war a supérieur une réglementation nationale. absolument am ay normes te gis nga buuba. c' est pas conteneur ubbi gis nga boo ubbee conteneur. gis nga ay chiffres yu ñu ci conteneur nag ubbi nga xool gis nga code yooyu ñu ci def conteneur vingt pieds dafa am poids boo xam ne mënoo wax ba mu dépassé ko un conteneur quarante pieds am poids boo wax ba xam ne mënu ko dépassé waaw depuis l'affaire de a été décidé